5M TV Sénégal. mbokk yi ñuy teewlu ci 5M TV Sénégal asalaamualeykum ñooy ànd ak yéen tey ci xibaar yi. ci lu ñel wàllum biir réew mi ñu daal di koy door ak libération ak xëtam yu yaatu yi nga xam ni rekk tey daal dina koy xëy xamle ci lu ñel Ousmane Sonko mu dal di koy euh, titré les minutes d'une audition de Ousmane Sonko euh, ci noonu la dal di xamle rek ne Ousmane Sonko dafa dal di évoqué démb lu jëm ci wàllum complot politique goo xam ne rek euh, dal di nu koy wax ci kanamu doyen des juges Maham Diallo waaye tam ay PV original yoo xam ne rek moom moo ñeel enquête internet de la gendarmerie Ousmane Sonko dal dina koy indaale ñu xamle rek il révèle les confidences du gendarme surnommé Rijal également de tirer sur Serigne Bassirou Gueye li tax nag mu dal di tiré wu ci Serigne Bassirou Gueye ma fi nekkoon procureur de la République nee na nag lu jiik njaak moom mooy njaak moom moo dal di tëgg lépp loo xam ne rek moom moo jëm ci boobu lépp complot euh, moom moo nekk ci bopp ba ba ca génn ga ci noonu itam la daal di euh, accusé euh, ki nga xam ne moom moo di kii lee di Mamour Diallo maître Papa Mamadou Sewo ki nga xam ne moom moo di maître Dior Diagne général Moussa Fall colonel Mbengue ñoom ñëpp nee nañu ñoo nekkoon ci boobu lépp complot ngir bëggoon ko faagaagal yàq carrière ci si politique ndax. ndax arrangé wu leen waaye itam ñu gis ne audition boobu Ousmane Sonko démb dafa daal di euh, euh, bañ a tontu ci yenn question yi nga xam ne rek ka fa présenté euh, parquet ba daal dina ko koy posé ci buñ sukkandikoo ba tey ci libération Ousmane Sonko ba tey teesu complot la ko daal di xamal ne ko bi complot yéen yéen a nekk ca bopp ba xam ngeen lépp ci commencement ba ci fin lu tax may tontu ci sa question boobu ci la daal lem ay kàkkaam dem toogee nale waaye itam ci doyen des ma xam Diallo question bi nga xam ne laaj na ko Ousmane Sonko ndax lu jëm ci prise de sang waaye ab test boo xam ne rek ndax bëgg nañu amal ko ca la ko Ousmane Sonko xamale ne lu tax ma leen di jox sama deret yéen ñi nga xam ne ay comploteur ngeen woolu ma leen looloo nekk dem li nga xam ne rek mën nañu ko faa tënk ci boobu lépp audition ci lu ñel fond dossier boobu nga xam ne rek moom moo dox diggam ak Adji Euh, ci lu ni mel la ñuy euh, desani Ousmane Sonko jot naa nettali sax ndaka la def euh, ba xam Ndeye Khady Ndiaye waaye itam Adji saar mi nga xam ne moo ko tuumal tey wàllum viol waaye ci libération ak titre bi nga xam ne rek titre na ko tey les minutes d'une audition ma maanaam temps bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko ci bureau pour doyen de juges ma xam jalloo ci lu yàggul dara ñaari waxtu ak ay nga la fa daal di amal li ko waral nag moom moo di question yi ñu ko laaj sax bariwul waaye ca la ko neex la tontu la ko neexul tontu ci mu tontuwul moom moo di lu tax ngeen may comploter ba pare ma may euh, yëkkati yenn kàddu di leen ko euh, xamal euh, ki nga xam ne moom man la ñu tuumal man def naa ba indi samay preuve yoo xam ne rek wane ne ni mbir mi mbirum complot la moo tax Adji Sarr mi ma tuumal ak ay avocat am defuñu la tout ba ay preuve yoo xam ne rek daf may dal di inculpé mu dal di cay teg rek ne moom Ousmane Sonko li nga xam ne moom moo bi ak lu ñu ko ci naral waajal na boppam ci am ndaje moo xam ne rek nag tey amal na ko ak taskatu uh, xibaar yi tam itam ñu gis ne moom Ousmane Sonko lépp loo xam ne rek xew na ca bureau doyen des juges dal dina koy uh, waxaat ginnaaw loolu rek lu jiitu Ousmane Sonko di ko wax Pape Alé uh, ci boppam daal dina koy xamle ni ki démb ci ab bu gudd boo xam ne rek ak ginna ci juróom benn fukk ci ay simili ngir leeral lépp loo xam ne rek xewoon na ca bureau doyen des juges boobu di Maham Diallo juróom ci ay garde rapproché moom Ousmane Sonko teg nañu leen loxo ni ki démb tribunal bu Ndakaaru la ñu leen fekk dal di leen di teg loxo la ko waral moom moo di euh, xeex bi xewoon ca ci ki ñu dippee ko ab confrontation ah, boo xam ne rek moom moo doxoon ci ah, diggi ndaw Ousmane Sonko ñu di ay garde rapproché ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di ah, ñenn ci ndaw yi boobu lépp village ci coow loo xam ne rek ku ñuy wax moom moo Omar Wade moom moo ko Omar John di moins moom moo ko fa daal di indi ginnaaw bu mu nga dem ca waa kër Ousmane Sonko ña di leen wax ne fii faatu jon ak président Macky Sall ñoo fi moomee looloo jur coow loolu rek ba confrontation jot caa juddoo ay nit yu ci am ay gaañu gaañu waaye tam ay kër yoo xam ne jot nañu ko fa daal di saccagé ci noonu la ñu porté plante procureur bu Mbour nga daal di auto-saisiru démb la leen fekk fa nga xam ne rek moom moo di ca tribunal bu Ndakaaru ba mujjee leen dal daal di teg loxo ci teg loxo googu la ñuy des ndaxte gis nañu Ousmane sonk ci boppam bi mu amalee tayab conférence de presse la mu ko dippee moom moo di enlèvement bàyyi ba mu nekk ci bureau doyen des juges ngir amal ab audition ñu ñëw enlever ay garde rapproché li waral yooyu yëpp nag nee na euh, politique moo ko waral bëgg ko néewal doole ci wàllum kaaraange moo tax ñu def lu ni mel waaye gis nañu ne procureur bu mbuur bi dal dinay sagg deru euh, président Macky Sall ak nguuram ba mu set nee na yooyu yëpp dara amu ci dafa fekk ne yoon dafa war a def liggéeyam ci vidéo boo xam ne mu ngi circuler euh, ñu gis nag ne ñoom ci boppam ay plainte ci seen kaw fan lañ leen di fekki bu ñu amee occasion bu mel nii dañu ko war a mën a dal di saisir ngir ñëw rek dal di ci amal boobu lépp liggéey ba war leen a mën a dal di uh, teg loxo ñu àddu wax ci leneen lu uh, ñeel mbirum people ak arrestation bu doon jéego doon jéego mi fi nekkoon ab uh, animateur ca 2STV yoon dal na koy teg loxo ba démb fanaan fi nga xam ne rek moom moo ci giri yi maanaam garde à li ko waral mu di El Hadj Ndiaye mi fi directeur général moo ko porté plainte Euh, ci noonu rek la ñu ko daal di euh, mujjee teg loxo ba mu ngi euh, garde à vue li waral nag doon jéego El Hadj Ndiaye porté ko plainte mu di ab vidéo bu mu fi defoon doon accuser El Hadj Ndiaye ba wax sax ne waa 2S dañu ko yoreel ab salaire ci noonu la doon tagge waa TFM di xarab kile di El Hadj ak kàddu yoo xam ne ku ko dégg ñaawlu ko looloo tax rek ñu daal di mujjee teg loxo ki nga xam ne moom moo di doon jéego Waly Balago Seck conférence de presse bi nga xam doon amal ak Dip ak Viviane Chidid Ndour ak ki nga xam ne rek moom moo di prometteuse bi nga xam ne moom moo dal di euh, créer tëgg événement bu mag boobu ci CICES mu di euh, événement boo xam ne rek ñetti ndaanaan ñoo ko war a tëgg mu di Wally Seck Viviane Chidid Ndour ak dim dip dund gis euh, ci ay répertoire yoo xam ne rek ku nekk dana woy sa ay woyu bopp yoo xam ne yu yàgg laak ak yu yees waaye itam ñu am ay diyo yoo xam ne euh, préparé nañu ko sénégalais yi ci noonu ci moom lem ndaje mu ñu doon amal ngir waajal boobu lépp événement ci la Wally Seck yëkkatee kàddu goo xam ne def na buzz lool di artiste bi nga xam ne rek moom mooy number one Sénégal euh, fàtte fi ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ay kilifaam ci noonu la ñu baree bari basé wu mm, di ko ñi di ko xarab moom Wally Seck di koy wax ne ndax dangaa fàtte suñu papa Youssou Ndour ñoom Omar Pène euh, ñoom Baba Maal ñoom ñi nga xam ne rek ñoo xàllu yoon wi tey te ñi ngi wëy di woyal seen liggéey euh, bu ñëpp rafetlu ci musique kon tey ba nga demee bay wax rek yaay yaay ni artiste number one ci musique sénégalaise waroon nga dal di xalaat ñooñu ñu wax ci wàllum tàggat yaram ak coupe du monde bi nga xam ne rek moom la ñuy waajal ca Qatar liste gaynde yi nga xam ne génnagul ba léegi ñu gis ne am na ci ay information yoo xam ne mi ngi euh, tàmbali di euh, fuite euh, nit ñi di ci waxtaanee ku ci mel ni Ismaïla Jacob ñu ne dina dal di nekk ci liste bi ñi nga xam ne rek moom la Aliou Cissé fas yéene dal retenir génne ko ci coupe du monde bi nga xam ne moom la ñu fas yéene dal di amal ca Qatar ci loo xam ne rek li ci des bariwul fukki fan ak juróom benn rek moo ci dal di des liste ba nag nee nañu Aliou Cissé dina ko publier le 11 novembre gi ñu euh, ma ñu jeexalee wàllum tàggat yaram ak Idrissa Gana Gueye entretien bi nga xam ne rek daal dina koy amal ca Everton ñenn ci média Everton yi daal di koy euh, fësal euh, kaddu yi nga xam ne moom la Idrissa Gana Gueye dal di xamle ci kàmbaagam bi nga xam ne def na ko ca Everton ñetti at yamu fa defoon jóge fa dem ca Paris Saint-Germain daal di dellu si waat yooyu yëpp Idrissa Gana Gueye daal dina ci indi lu yaatu yaatu lan moo tax mu dem dellusiwaat ginnaaw bu euh, contrat am jeexee ca Paris xelam demul woon ci delluwaat ca Everton waaye dafa fekk ni rek ba ñu ko oowee euh, amul ak sikki ngir euh, demaat naam bu fekkee bokkul woon ci ay plan wam mu jàpp ne rek Everton këram def na fa ñetti at waaye itam mbégteeg bànneex la am ci delluwaat foofu ngir dal di jàpp ca liggéey ba bu baax a baax ngir ñu dal di mën a percer ba àgg fa ñu bëgg àgg. mbokk yi ñu doon teewlu ci 5M TV Sénégal fii la ñu ndax képp bi la jataayu xibaar ba ëllëg incha allah ci yeneen jataayu xibaar. 5 TV Sénégal.